kon loolu lépp waxoon nañ ko tey nag ñu agsi ci yonente bi xam ngeen ne ci fukki laat bi alayhi salaatu wasalaam ba soxna Khadija nelawee ca koor ga ca kori ga rek dafa wax ne dafa ca la tàmbali nag woote bi mu génne ko dëkk bi mooy yëmalee ko léegi ci waa Makka waaye da ko tàmbali di ko génne dëkk bi ca la dem suñuy wax Taïf ca kori wa ca la dem Taïf fukki at mi ca kori wa ca la dem Taïf Taïf nag banu saqif ñoo fa dëkk di ay nijaay ci moom alayhi salaatu wasalaam mu ne nag ginnaaw waa Makka ñoom wedd nañ ma te nanguñ maa gëm naa dem foofa kon xëy na yàlla li may woote ñu man ñu man ko topp ñoom ba muy demit xam nga saqif ak makka dafa dafa dafa dafa sore mat na juróom benn benn fukki mayil maanaam man lu xaw a jege juróom-ñett fukki kilomètre wala mu ëpp ko tuuti maanaam diggante makka ak saqif dëkk ba mu jëmoon taif mat na juróom-ñett fukki kilomètre wala lu ak lu topp yonte bi da ko dox bi muy demit dëkk bu mu romb dana fa jaar nuyu leen leeral leen mbirum lislaam waaye yàlla natt ko kenn gëmut kum dëkk bu mu àgg bu wootee ana borom dëkk bi dama bëgg a wax ak waa dëkk bi waa dëkk bi daje mu wax a wax a wax ba àggal jàng alxuraan ñu ne ko daal sëñ bi boo la yittee nga dem ci maanaam kenn kenn gëmut maanaam njëlbeenu islam da nga ci dégg ne mbir du du xëy rek sot fi ne fukki at yi ba nañ demee Madina gis nga daanaka ay benn benn dugg kenn nangut a dugg si islam ba mu àggee Taayif it wax nañ ne dafa am ñett ñoo xam ne ñoom la ñoom la ñoom la ciblé muy ñoo xam ne ñoo bokk sax benn baay ñetti mbokk mooy ki ñuy wax abdu yaayil ak mas'ud ak xubayb ñoom ñëpp doomi amru ibnu umayr saqafi lañ ñoom ñett ñooñu la njëkk a dem ci ñoom toog ak ñoom ne leen daal daa am lu ma yëkkati maa ngi jéglu baax bi mu ñëwee ne leen daa am lu ma yëkkati mooy mankat yàlla ci boppam moo ma yónni li ma yoon nit mooy lislaam mooy itam la ci jiitu mooy gëm yàlla te xam ne kenn rek la xëram yii ñu fi jaamu ni yëpp du yàlla te itam ngeen we- maanaam ñu nga teg ci itam maanaam jëf lu baax ak bàyyi lu bon li ma lim yi nekk ci lislaam yëpp ba àggal ñett ñooñu nekkoon ñoo xam ne ñu ñàkk kersa la dama yàlla digal kenn ki dana ko yow de su fekkee yow ñi rek la yàlla yónni giñ naa ne danaa dem ba ca kaab ga ma xotti te yére yëpp yàq foofa ndax yow bu fekkee yàlla amul kenn ku mu yónni ku ma yow dama xem nañ ko ak col gi col col gi mu tol ak melaw yu mel kenn ki ne ko daa ama wajada allahu ahadan xayrak xanaa yàlla amul keneen ku mën a yónni ku ku ku la weesu sëñ bi ka ca def ne man de sax wax ji duma ci sori ndax yow jëruloo man daal sa duma ci waxante man di sonn ne ko ndax ñaara am benn su fekkee yàlla la yónni xëy na ëpp nga ma daraja ba sama jëru may wax ak yow fekkee itam yónni wala wax ak yow yàq wax la moo tax ñoom ñett noonu lañ ko tontoo tontu yu ñaaw yooyu yónnte bi ne leen léegi nag li ma leen di sàkk kon ngeen li jotaay bi ngeen nëbbu ko ngeen nëbbu ko mooy bu ko kenn yëg maanaam waa Màkka buñ diggee buñ déggee nii ñu koy reetaane fii ñoom dañuy gën a sikkal yónnte bi dañ koy gën a wax lu lañ lañ daa wax ñu ne ko loolu duñ ko def danañ yónni ndaw màkka xamal leen liñ la tontu lépp ak mbir mi lépp na tasaar ko siiwal ko ba ñëpp dégg ko yónte bi foofu xam nga am na fa fukki at fukki fan fukki fan yoo xam ni day def waa dëkk ba ak kilifa ya ku mu ca xam rek dana dem toog ak yow leeral la mbirum lislaam waaye yàlla dogal kenn gëmut ci ñoom mujj nag ñu ne ko yow sax dëkk bi dana bëgg nga génn ko ndax yow yaa ngi ni waaj sowal ci dëkk bi yemuñ ci loolu ñu wax waa dëkk bi xale yi ak ba li nga xam ne ay li nga xam ne xam xamuñu tous ñu ne leen ni ngeen gën leen ko xeere leen ko ñu fekk ko fi mu toog moom yonte bi ak Zayd ibnu Zayd ibnu Zayd ibnu Xaarisa ñoo moo moom la àndaloon ñu topp ko nag ak ay xeer di ko xeere di ko xeere fu ne xeer jóge fa ak ay yatak nga xam ne Zayd ibnu Xaarisa daa mujj jël mbubbam ak ni mu koy ñëw mel ne ku ñett maanaam maanaam maanaam muur boppam ci gën a ci ci yonente bi alayhi salaam bañ xeer yi agsi ci moom waaye ci wër xeer yi léeg-léeg rek mu romb say agsi ci sang bi alayhi salaatu wasalaam te it moom yaram wi keroog dafa dagg dagg dagg ba lépp di turoog deret yonent bi itam xeer yi dafa am yoo xam ne dafa agsi ci moom ñu topp leen ba ci benn benn tóokóor boo xam ne ki ñu wax ñaari ñaari ñu dëkkoon màkkaako moom mooy Utba ak Sayba doomi Rabia ñoom ñaar ñëpp doomi Rabia lañ Utba tum nu Rabia ak Sayba ñoo ko moomoon nga xam ne mat na juróomi kilomètre boo génnee tay foofu lañ ko bàyyee yonent bi deret ji di siit ci moom mu ànd ak sayid ñëw ba ci tóokóor boobu ci genn garabu tàndarma wala genn garab rek mu daal di fay toog ba mu fa toogee nag ca la wax waxam ju siiw joojee mooy jaaxle na booba maanaam fukki at ak yàlla yónni ko muy woote kenn wuyu ko te itam maanaam mënta wax kenn mu dégg ko wala ci ca la wax nag ne ko allahumma ilayka ashku don fa quwwati wa qillata xiilati wa hawaani ala nnaas yaa arxama arraximina anta arxamu arraximina wa anta rabbul mustadafin ila man takiluni ila aduwin yatajahamuni aw ila sadiqin mallaktahu amri in lam yaku bika gadabun alaya fala ubali gayra anna aafiyataka awsau li audu bi nuuri wajhika alladi ashraqat lahu azulumat wa salaha alayhi amru dunya wal axira an yanzila bi gadabuk aw yaxilla bi saxatuk fa laka al utba xatta tarda wala xawla wala quwata illa bik wax jooju wax ju fees dell ak ay yëg-yëgi la ci biir maanaam wax ju kawee noonu moo da ko wax ne ko suñu borom maa ngi lay jàmbat nag doye di gi ma doye di nii ci biir nit ñi ak ñàkk gi ma ñàkk ay pexe pexe mu ma jëm rek du sotti maanaam doye dal gi ma nit ñi doye dal itam maa ngi la koy jàmbatal lépp maa ngi la koy jàmbat ndax yow rek yaay kii yaay kii dàq yërëm ñëpp maa ngi lay ñaan nag nga sotti ma sa yërmande ndax yow yaay buuru ñi ñi ñi néew doole ñëpp daal dina ko nag suñu borom waaw koo ma booleel nag fi ne ak koo ma bàyyeel sama biiri noonu yi nga xam ne dañ may tooñ ak di ma sonal nga may bàyyee wala bokk mbokk yi nga xam ne mun amuñu njariñ wala amuñu doole ne ko nag maa ngi maanaam giñ ci yow rek ci sa leer gi nga xam ne moo dàq mboolem lëndëm yi ak sa jëmm ji sell jooju nga xam ne mooy mën a yëwénal lépp mooy li may muslu ci yow mooy bu ma sa mer topp bu fekkee ne lii ma dal da nga maa mere moo tax loolu maa ngi koy jégalu di ñaan nga teggal ma mer moom su fekkee nag lii ma dal dalaa neex moom kon moom naa ci wéy awma awma maanaam maanaam du ma dellu ginnaaw mukk maanaam leen rek moo may naqari mooy ma nekk ci ne damaa jàdd yoon te yëguma ko waaye su ma wëree ne maa ngi ci yoon wi moom lii lépp nangu naa ko te neex na ma wax wa waxal ju daw ju daw yaram joo xam ni da ci déyaale boromam bi mu waxee loolu nag fekk tokkoor bi wax naa ne Utba moo ko ak Rabia ñoom séen dañ ko mu toog biñ ko séenee ak melo wi ñu yërëm ko dégg ñu wax sax waaye yërëm nañ ko ñu daal di yebal seen benn xale ngóor soo xam dañ koo moomoon ñoom ne leen ne ko jox ko benn pot def ci ak xéwal wax ngóor si ne ko dem leen demal jox ko kee ñoom xam nañ ko waaye booba ay yëfar lañ itam ñi gënoon a sonal yonte bi lañ waaye keroog yërëm nañ ko ci ci meloo bi addaas ngóor si mi ngi tudd addaas addaas bi mu ñëwee jox yonte bi alayhi salaatu salaam pot bi fekk booba dañ cee def tàndarma yonente bi alayhi salatu wasalaam wala raseñ am na ñu ne raseñ yonente bi alayhi salatu wasalaam jël benn raseñ daal di koy xewloo waaye bi mu koy jël dafa wax bismillah bi mu ne bismillah addaas ne ko xanaa yow dëkkoo fii loolu de waa gox bi ñoom duñ ko wax yonente bi ne ko waaw yow yow yaay kan bay xam li waa gox bi wax ak luñ dul wax mu ne ko man ab nasaraan laa xam bismillahi ñee moom xam nga laata lañu wax usa duñu wax ñoom tu maanaam maa ngi tàmbali ci biir ci turu yàlla mu ne ko man ab chrétien la adas ne ko man nasaraan la nay na waa la laa jóge doon ab jàmm boo xam ne ñu ko jàppe foofu yonente bi ne ko foofu de mooy dëkku waa ju baax dañuy wax yunus ibnu matta adas ne ko da nga xam yunus ibnu matta mu ne ko waaw xam naa ko bu baax ndax moom sama mbokka ab yonent la woon man it yonent laa addas daal di tàmbali rek këf loxo bi yonent bi di ko fóon di ko fóon fóon yu bare bare bare bare ngir moom gëj naa gis lu bokk ci ak ak yonent te xam ne te te te xol ba itam ngëm dugg na ci ut Utba ak ak ak Sayba bi ñu gisee addas li mu def ñu ne ah sa ngóor si sa waaye njabar na ko maa ngi ne di ko fóon nag di fóon loxo ba di ko sujjotal nee na addas daal di ñëw bi mu ñëwee ñu ne ko waaw addas sax bi mu ñëwee dañ ko tam li yet ne ko waaw li nga def nag yow yow ñu yoon la nga jox ko xewal gi nga dem fa di di mel ne ko mooy leen kii ma gis de ku ko gën ci kaw suuf amut amu amut mooy ki gën ci kaw suuf ci leen ñu ne ko yow loo xamee noonu mu ne mu ne damaa wax loo xam ne ab yonent rek moo koy xam xot ba ne ko addas yow sa diine ji nga nekkoon moo gën diine yi waajee bàyyil yi nga wax demal ci liggéey ba da koy tax foofee nag la yonte bi alayhi salaam moom it tàmbali jógewaat fa ñëw di dox jëm mag bi mu ñibbisi itam a ngi jéglu bu baax woon bi mu ñibbisi itam yonte bi coom moo nett li ni daa dox ba mu yàgg rek nee na ma seen jibril maanaam ma xool ci asamaan si rek seen jibril alayhi salaatu wasalaam muy ñëw nee na jibril daan ne ko fekk booba maanaam gaa yu baax yëpp dañuy wax ne ba lee xawee moom ca Makka ca ca Taayif moo dem asamaan si malayka yëpp dañu maase yëngu ñaan suñu borom mu jàppale ko ndax daal yonent bi nga xam ne moo gën ci mbindeef moom la yàlla maanaam maanaam maanaam moom la yàlla gën a fonk ñu nit ñi yàlla da ko yónni ngir yërëm jaam ñi rek moo tax mu yónne ko mu yërmande yàlla ci kaw suuf représenté yërmande yàlla ñu di ko toroxal ak di ko tooñ tooñ yi ak di ko def lu mel ni moo tax malayka yëpp jàmbat suñu borom loolu yonent bi ne damaa dox ba mu yàgg rek ma séen jibril yi imaamul Buxaari nett li nee na jibril ne ma kat yàllaa ma yebal ak malaayka mii ngay séen mooy malaka mooy mooy malaaka mi yore wàllu montagne ji malakul jibaal nee na lu la neex nga digal ko ko te loo ko digal mu def ko malaayka mi ne ko tàmbali nag di ko leeral moom li man lépp mu ne ko daal man montagne yi man la ko yàlla digal man la ko yàlla dénk waa Màkka gis nga leen aw xur leen dëkk ñaari montagne moo leen moo leen moo leen moo leen wër bu la neexee ma boole leen rek marché leen mu nekk seen bàmmeel yonte bi ne ko bal arju an yuxrija allahu azza wa jalla min asrabihim man yaabudu allaha azza wa jalla waxdahu la sharika lahu bi yonte bi ne ko déet bu leen bu leen bu leen bu leen suul ndax xëy na ñoom buñ gëmutit seeni doom ëllëg mën nañoo gëm yàlla di ko wéetal di ko jaamu jaamu gu tegu ci yoon moo tax bu leen bu leen suul mukk foofu dañuy gis yërmaane yonte bi alayhi salaam bu doon kenn ci nun ñi faat nga wax dëkk bépp la lay wax amatu sikk la lay wax maanaam yow nga sa biir bokk ñu di la xeere ay gone di la maanaam naa jégal saaga ak wax ji ñaaw dinañu wax la ko xeet tooñ dinañu def la ko ci sa biir bokk maanaam keneen surtout yonte bi nga xam ne am nay teele yu booba Zayd ibn Harisa mi ngi ci ginnaawam di ko jéem a saaga gi digg ay teele yoom sañ nga di la xeere ka kii boo ci boo amul benn bati na ngay faat waa dëkk bépp amatu la waaye yonte bi gis nga ko da wax malaayka mu ne ko bàyyi leen bu leen bu leen bu leen suul